ginnaaw bañ leen nuyoo ziar leen bu baax yéen ñeen suivre ci 4appuis tey bu ngeen gisee ki ñu toogal war ngeen ko xàmmee muy Mor Kang Kang ñëw fii seet si ko fas waxtaan ak moom ci combat la nar a xewee ginnaaw waaw benn paa moo ma ko tuddee rek waaw lan lay signifié. non la wax lan lay signifié ndax euh, booy xool daanaka am na benn dëkk bu nekk Fuuta daanaka kankang la tudd waaye xam naa paa bi te xam naa fa la ko jëlee rek mu tax mu tuddee ko. ci mais man action nga def ma tax mu tuddee la ma am inspiration moom tuddee la kankang Mor kankang ci lan la jógee. waaw kankang booy xool daanaka dama doon xeexu bari rek ndax daanaka dama doon xeex xeexu bari rek mu ne ma kii dafa ës kii kankang kii kii ku kankange la loolu daal tax mu ma ko woon wootee. ci loolu la jógee daal. Mhm. Mhm. sa palmarès boo ñu koy fàttali ci fàttali ñaata combat nga bëri ñaata victoire ak ñaata défaite. waaw bëri naa neuf combat neuf victoire. amagu combat neuf victoire amagu ma défaite. kon amagu ko défaite. Mhm. bëri neuf combat neuf victoire sans défaite lan mooy maye loolu. waaw jom ak fulla rek. ànd ak say mbokk. waaw tamit ànd ak ànd ak sa entraîneur tamit. bu la nee bàyyi lii nga bàyyi lii bu la nee defal lii nga def lii. waaw loolu daal koy maye. ñun mm-hmm. combat yooyu nga bëri ban moo ban si gën a jàpp ban laa si gën a jàpp waaw non soxna sama combat bu mujj bii waaye ci des moom fàtte naa leen boo ci ci combat yi bu ma si gën a xam na tey tey xam na tey bëri nga xeex nga bu ma si gën a dajee coono waaw non combat bi moom laa si gën a dajee coono combat bu mujj bii mujj bi waaw bu mujj bi lu tax loola ki nga doon bëree moo adversaire bi waaw ndax ndax dox si mbedd mi sax ñu ne Mor am na combat mm-hmm. Mor ki muy bëreel mbërëntaan la mm-hmm. tamit du xaddi lu combat bi gën di diir rek muy gën a am condition moo tax mu xar sama tànk tubéy ne combat bi waruma ko ñàkk waaw. mais bu ñu wàccee combat parce que arène nationale la woon. waaw mais ñu gis indi woo xeex da nga ñëw bëreeg bëreeg waa ji jàppoo daan. non waa ji option boobu. moo boobu xeexuñu waaye bu taxawoon rek dañuy xeex premièrement bi waaye bi ma demee ba xam ne kii nanguut a xeex te tamit euh, day day day jël combat bi teg ko si naxante ah tamit sama xel dafa ñor rek moo tax ma dem fekki ko daal di ko jàpp daan waaw. nga jóge ci combat boobu. ñu mhm. euh, contacté la promoteur bi commencé la contact yeneen proposition. Mhm. ba sa combat ram dab daan taxaw. Mhm. combat bi nan la taxawee sa diggante ak dab daan. sama diggante ak dab daan sama diggante ak dab daan coow yi daa bëri woon boobu sax du boobu gin dafa jóg dafa géntele ne sama combat ak Mor taxaw na na taxawul. waaw gin bu yoof léegi si la ñu ma contacté dab daan tamit euh, samay sama sama waa staff. tamit nangu si dab daan ñu jël dab daan waaw. est-ce que amoon na ñeneen à part dab daan yu la doon proposé. non ñooñu ñu doon proposé moom ñooñu moom wax dëgg du leen jël waaw du leen jël waaw bu sama waa staff nangu woon sax man du leen jël. yow doo leen jël waaw man du leen rawoon si làmb nga waaw dama leen raw si làmb. Mhm. dab daan xam nga ko. ah xam naa ko nii rek. xam naa ah, ko nii parce que mbër mu am expérience la ci làmb. waaw mbër mu bari wërsëg. mbër mu bari wërsëg. waaye yàlla dafa def na moom wërsëg yi moom lépp benn la ndax booy xool yàlla wërsëgal na ma ba daanaka neuf combats yi ma ci bëri yëpp mësuma daanu tamit yàlla na yéex waaw mënut a ñàkk nag waa yàlla na yéex waaw. mais ñu gis souvent ay combat am combat am ñu yaakaar du ci génn si lay génn est que xam nga yëngaloo ci moom. waaw loolu loolu loolu loolu la rek loolu da koo liggéey rek moo tax mu mérito ko gis nga affaire yi moom loolu liggéey rek moom nga mérito waaw li mu liggéey la rek tamit damay jàpp dama dama jàpp ne lañ bu bu bu le ba le vingt le vingt juillet. si quatre waaw le vingt février. si kàttanu yàlla dama jàpp ne man de ah maa ngi def lu ma yàlla maye ndam te kàttanu yàlla bëgg naa am ndam waaw si kawam. combat bi dans dans presque vingt trois jours vingt cinq jours moo ci des maximum. waaw combat yi booy xool ñett ñetteelu dimanche bële la. waaw combat yi moom booy xool ñetteelu dimanche bële la daan daa mel ni waaw. fa nga toll ci ci instant bi état physique beeg moral la. waaw instant yi moom boo boo gisee li ñuy liggéey nga xam ne pare nañu ñun mësuñu ñàkk pare chaque jour dañuy pare waaw. est-ce que ko lan la lan la mënee ci côté bëri ak ci côté. dëgg li mënee moom xaw ma ko man li ma mënee lay wane man bu jour ba li mënee moom du ma ko bàyyi. mooy lan. daan laa xam yow teel a yow sama supporter man loolu laa xam. bëre wala xeex. waaw lu mu ci lu mu ci andi rek. lépp rek lu mu ci indi rek moom ñun mat na. est-ce que. Mhm. mosoo dégg mosoo dégg ñu ne Mor day xeex waaye si combat bi laa préparé xeex. a xeex ci combat waaw dama nar a xeex si combat bi. Mhm. mais moom ci muy mbër bu am mhm. moom dab daan. waaw loolu loolu booy xool loolu booy xool ki euh, kirij ak oto la rek. kirij la ak oto. Ah. kirij oto loolu mooy lan. kirij fu mu fekk oto yëkkati ko de. waaw moom am na loros. waaye man kirij la kon da nga bëgg wax su ngeen foo ko ci da nga ko yëkkati ci kaw. waaw ah, was dëgg moom man li may entraînement damaa jàpp ne fu nu wuree man maa gën a ne xale. moom da koo wax si da moom ku gën a ne xale la yàlla may ndam waaye ku gën a ne yal na ko yàlla may ndam waaw man loolu la jàpp loolu la ñaan waaw moom loolu la ñaan moom ku gën a ne xale yal na may ndam ku gën a ne xale yal na ko yàlla may ndam mm-hmm. man loolu la jàpp sañ nga wax si ñaan amiin amiin ak ma koo sañ ñaan mais est-ce que lu nekk dafa nekk mbër boo xamante ne dafa nekk trompeur bu simee ko da nga koy foog xool foog ne amul doole wala est-ce que naru la trompé si côté boobu bu sim physiquement. waaw du yaa ngi nii boo ma gisee boo ma gisee su ma naan kii mbër waaye bu sumee ko nga xam ne mbër maa ngi nii. kon doole jaaxaloo la. doole non doole moom man jaaxaluma kuy bëreeg bee ba julli di bëreeg mor puy njaaxum na ko noonu mot séeréer non was dëgg ak booy ndaw yi sew sewaan yi fii booy mën a bëre was dëgg loolu moom jaaxalu la. sa objectif ci làmb lan la waaw roi rek bëgg a tekki tamit dimbali samay entraîneur ak samay supporter ak samay mbokk kese di waaj bu baax waaw. souvent dañuy gis mbëru ndaw yi am idole ci làmb ji. Mhm. yow sa ci làmb ji kenn sama idole moom kenn la woon muy Balla gay mhm. sama idole Balla Gaye la woon. waaw Balla Gaye la woon ndax booy xool Balla Gaye 3 lu ma tuddee woon. waaye dama dem bi si digg bi xam ne sensé ko xam ne Mor Kankang bii sama tur laa joxe waaw man dama war a gëm sama bopp ñoom li ñu lekk man ma lekk ko man loolu laa gëm. Mhm. sa diggante mbëri bawal yi ku si mel ne ay mbay guy gi mais nekk suñu ko euh, ak ñoom sa diggante waaw mbëri bawal yëpp man samay gaan lañu was dëgg samay gaan lañu maa si gën a nekk caat mbëri bawal yëpp maa si gën a képp koo xamante ni yéene naa la loo xamante ni lu bon la yàlla na këpp sama kaw barki Serigne Fall man yéenewuma kenn lu bon barki Serigne Fall nit ñi wax nag waaye man yéenewuma kenn lu bon man ñëpp laa seqal jàmm te yàlla nu yàlla defal jàmm waaw si kàttanu yàlla est-ce que tey wala Mbaye Gouye Gui am combat wala Tapha a ngi dem di jàppalante si côté contact côté entraînement. waaw loolu dëgg la maa ci gën a nekk xale waaye heure bu ma Tapha Tine man respect la may jox barke suñu Fall li ma nekk xale xale respect la may jox. billaahi wóor na yàlla. rafet na daal rafet na wax euh, Dab Daan. Ah, Dab Daan li ma koy wax bariwul bala 20 ma jàpp ko daan ko si kàttanu yàlla waaw. yàgg. waaw. Ah? ah dina yàgg bi. kan xaar nga mu yàgg. waaw mën na yàgg. combat ne bu bu mu ñëw rek yomb. jàppal ne mën na metti trop ba jaaxal say mbokk. dañuy gis say combat faral di gaaw. waaw man damay bu yàggee ba yàgg cinq minutes. xanaa déggoo li ma la wax nee naa la bu arbitre taxawee aw ma tànk ginnaaw tànk kanam laa am man bu man bu arbitre bu arbitre firi rek man jàmm jeex na damay jàpp ne man dama la war a jàpp daan la yiwi samay mbokk si teel ndax fa ñuy ñibbi dafa sori waaw. incha allah jox ginnaaw bañ leen nuyoo ziar leen tey ñu ngi fii école de Cheikh Baba set fii euh, Père Bada Soung mu yor fi xale yi di leen entraîné ñu fas yéene seq ak moom waxtaan ci naka lay naka lay xale yi fii ku ci mel ne ñoom Mor Kanka gis nañ fi Mor Kanka gis fi euh, Bébé Julde ak ñeneen ak ñeneen mu indi ci xalaatam Père maa ngi lay ziar waaw ñuy delloo ziar ñuy delloo ziar bu wér Père fii école de Cheikh Baba sa mhm. nekk na xale yi fii nan la demee euh, école de Cheikh Baba benn école la bu doy waar boo xam ne xale yi dañ fi nekk di jàng bëree am ci nag sart yi ñu tegu yu wóor entraîné bëre entraîné woo doo bëre boo gisee seen rentrant ci lamb da xam ne yii xale yu entraîné lañu yu ñuy pare lañu aussi ñu tegu ci yoon lañu aussi aussi. waaw ma tête de bi fii. waa tête de file bi njaaxum la dafa wote ji ñëwul tey ñëwagul. njaaxum mooy tête de file bi. waaw ginnaaw bi ay ñoom bébé de ñu ngi fii ñoom euh, sandrep ñu ngi fii Euh, Julde Julde Julde 1 mu ngi fi Julde de mu ngi fi Cheikh Mbaba 2 mu ngi fi Fils de Bada mu ngi fi Mor Kankang mu ngi fi. Trompeur encore mu ngi fi. moo mm-hmm. booy Pouy mu ngi fi. kon xam nga xale yooyu boo toogee mën nga fi lim vingt personnes yoo xam ne kenn ku ci nekk def nga palmarès. def nga palmarès. Mm-hmm. Mm-hmm. saison bi ñu génn nii mu 2021. seen seen seen euh, parcours saison bi naan la demee. waaw suñu bilan mooy bi ñu génn wala bi ñu duggagul. non bi ñu génn nii 2021 bi. en 2021 bi. Mhm. puisque ñun 2021 saison bi dañu deuxième la ñu jël. que même dem nañu benn moment ba ñu ne ñun ñooy paye ñooy premier ñu def ci journaux yi bind côté bu ne après ci la ñu doog a wëlbate ko woowaat ma ne ma ah vraiment yow yaay deuxième que gis nañu ne euh, gis nañu ne kale euh, école euh, fële nakati léegu lébu bi xaw ma. ñoom ñooy première waa Tëngéej waaw ñooy première ñun ñooy deuxième waaw. yéen bëri ñaata combat. bëri nañu presque lu war a mettre euh, bëri nañu trente deux combats. Mhm. trente deux combats yooyu euh, normalement kii lañ ci am cinq défaites lañ ci am ak benn mat nul li des yëpp ay victoire la. li yëpp ay victoire la. lépp 32 benn match nul. Mhm. waaw mhm. est ci loolu bi ngeen defee sondage bi xamale yéen a jël deuxième est ce que am na ay après ay lu mel ne ay euh, ay neexal yoo xam teg na ko seen loxo. wala non dara dara ñu nu ko même deuxième bi ñu nu dara. même deuxième bi joxuñu nu dërëm gisunu neexal dégguñu nu wooxuñu nu sax encore ne nu lii la wala lii la félicité félicité wuñu nu sax. félicité wuñu leen sax Mhm. ci loolu ci ñan la jógee ci CNG bi la jógee wala ci ñi yor. non c'est ci yi ñoom ñoo bind. wax ci rajo yi ñu dégg parce que sondage bi ñu ko defee rek ñoo déglu ci rajo yi ñu wax ba am ñoo xam ne dañu ñëw di ma félicité. ci première boobu ñu wax ne noo ko jël. Mhm. Cheikh Mbaba moo jël P. Mhm. ñu demaat ba dellu siwaat ñu ne euh, Songane Gueye xaw ma moom mooy P ñun ñooy deuxième. waaw. ok fi mu toll nii am na mbër wu ci am combat ku ci mel ne Mor Kankang. mu war a bëri ak. Euh, Euh, dab daan dab daan waaw. le 20 février. Fallou Ndiaye uh-huh. ko tëgg. waaw ñoo leen di waajee combat bi. waa di sant yàlla bu baax a baax di ñaanal ñaari mbër yi yëpp. kenn ku ne yeggali say entrainement ci jàmm ak salaam ba ñu yegg ci bés bi Fallou Ndiaye bi nga xam ne mooy promoteur bi ñu di ko ñaanal jàmm bu baax parce que mu ngi ciy jàpp carrément di dimbali xale yi di leen jox ay combat ñuy bëree muy lu am solo nag nu dëkk ak moom mu di jàppale bu baax itam aussi ndax bawal bawal la comme ñun. combat bii mu passé moo ko tegoon moom euh, contre moom ak kale booy yëmbal mu daan ko mu jël ko dox ko grand combat moom ak dab daan kon loolu dañ ci dañ ci dañ ciy sant yàlla nag bu baax di la xamal ne préparation bii nga gis ni booy ñu ngi liggéey lu gën a dangereux lii ñu ngi gën a liggéey lu gën a metti lii. liggéey tey nii. lii physique la dañu physique tey mais suba dañuy sarse sarse bu metti contact contact jël gant boo ko ci ki xale bu ndaw bi gën a tuuti tey boo ko tàkkalee ngem day xeex day bëre boo ko xoolee xool ko dimanche pass euh, samedi passé xale bu ndaw bi jëkk a bëre ñu di ko wax Ramdan Junior xoolal ni mu bëree ak booy boobu ni mu bëree samedi premier combat moo nekk noonu. kon position bi jël ni liggéey bu metti moom moo leen liggéey rek liggéey bu metti kese lamb amul secret liggéey rek la. kese liggéey rek la. entraîner euh, récupérer déglu ñii la ñi nga nekkal waaw. Père jaajëf ñu jaajëf. merci beaucoup commencé ak Mor waxtaan. jeex na amul.